sunugal 24 point net di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sunu bopp seen émission xale ba mu ñëw dafa def dérangement def déplacement ñëw ba fii ci Parcelles Assainies plus particulièrement unité 18 seet si fi borom xam-xam bu mag borom xam-xam boo xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi muy Serigne Cheikh Thierno Oumar Sow di borom xam-xam boo xamante ne nii point yi ñuy waaj a développé rek. képp koo xamante ni am nga ci ay gàllankoor rek boo ko woowee aajo ci kàttanu yàlla dina faju parce que am na lu ko ci yàlla may ñu bàyyi ko rek mu nuyoog waa réew mi ci àdduna wërngal këpp ci biir Sunugal 24 point net sëñ bi soo ñu ngi leen di. asalaamaaleykum wa rahmatullah baada auzu billahi min a rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki din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 ñu ñëw ci premier euh, waaw listixaar nag képp koo xamante ni dangay ngay naan sëriñ nga wala dangay yëngu ci wàllu sëriñ listixaar moom dañ koy def. Euh, te listixaar yàlla dafa def euh, ñu jànge ko ci ay bërëb yu fasantikoo yàlla ci ci ci réew mi. ci noonu yàlla def ñu seet jàng façon seet yu bari waaye yàlla def ñu tànn ci boo xamee ni boobu moo ñu gën a euh, ci boobu lañ gën a gis suñ bopp boo xamee ni chaque jour dañ koy faral di wax sénégalais yi mooy seetu ukko nga xam ne seetu maamu pël bu yàgg la euh, jamono ji moom lañuy ñuy gën a di utiliser seet nag dafa bari ay façon am na ay list xaar am na ñuy seetee ndox waaye ñun nag yàlla dafa def euh, ñu gën a am chance waaw am na xaar boobu mooy listixaar nga xam ne nit ki day fanaanoo nelaw lu mu gént loolu la waaye ñun yàlla def def euh, ñu ñu féetuwoo ci wàllu bi ñuy naan ukkoo seetu pël yàlla may ñu chance nag te nit ki bu ñëwee ci ñun ñu wax ko ci loo xamee ni du dara du ci deñ te dañ ko ciy wax loo xamee ni démb la tey suba waaw seet moom xam nga nit ki nit ki ci seet lay xam sa professionnalité léegi nag ci seet boobu nag nit xam nga dundoo ak nit ki xamula xamoo ko nga seetal ko boo ko waxee loo xamee ni moom lii lii la dina xam ni kii sëriñ la xam nga léegi sëriñ sëriñ sëriñ dafa am ak euh, ñoo xamee ni dañuy liggéey wàllu sëriñ te duñu sëriñ moo tax nag ñoo ñëpp ci ci ci listixaar mun nga leen ci ràññee ci ci seet wala ci listixaar moo tax nag xam ne waaye nag yemuñ ci listixaar bi kese ndax dañu xam ne seet kese amul njëriñ ndax xamal nit ki lii ak lii ak lii loolu rek amul njëriñ li am njëriñ kay mooy boo ko xamalee lii ak lii ak lii nga xam nooy def ba dindil ko ko bu dee dafa bëgg ñu dindil ko ko waaw loolu daal lañ amoon ci luñ mën a wax ci seet. tey ci biir seet googu ñu ci bari dañuy bëgg tukki xool ba xam réew mi ñuy dem dina leen arrangé ñu jokkoo ak yow nga ci waaw léeg-léeg xam nga seet li important seet bokk loolu bokk na ci. ndax nit ki yaa ngi tukki foo xamee ni xamoo boo fa accès ndax foofu sa biddéew euh, mun na mun na nekk foofu dafa am lu ñuy tuddee biddéew ci ci wàllu seet maanaam loolu xam naa duñ ko comprendre mais dafa am lu ñuy def lu ñuy tuddee biddéew moom képp kuy seet moom ngay xisaab mooy gis biddéew doomu aadama bi mooy waral nga gis ñii euh, bu dee ñuy def suuf nga gis ñu def seen euh, kàmb yooyu Euh, waaw loolu moo tax nit ki nit ku ne def am biddéew léegi nag ci loolu noonu am na foo xamee nit ki bu fa dem boo fa boo fa boo ko seetalee ba nga ne ko bul dem bu demee it lu ko neexul lay gis ndax sëriñ fanaanewul arche fanaanewul course fii lay fanaan waaye moom seetale rek la ci mën lu mu la wax nag bu fekkee euh, gis na ci solution mu wax la ko bu fekkee gisul solution aussi mu wax la ko rek. waaw xam nga wallu visa wala wallu kayit wala wàllu examen yooyu moo xaw a nuroo mbir ndax euh, lépp wàllu loolu yëpp wàllu kayit la léegi loolu loolu dafa am pour yàlla boo xamee ni moom la mag ñi doon ñaanee te yàlla dafa def ñun dañ ko jàngee ci daara boo xamee ni képp koo ni fuuta lasraar ñu ne la daara diw mooy mooy ceer na xam du rab bi njaaj yal na ko yàlla yërëm euh, maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu ki fa ku fa nekk tey xalifa mooy eh, Thierno na eh, Thierno Abdou Rabi Ndiaye moom da da doo def dafa def ñu jàngal barxuut barxuut boobu boo ko defalee téeméeri nit la ñuy naan téeméeri nit boo ko defalee te kenn soxloon kooku mooy am léegi nag xam nga loolu dafa dafa dafa niroog mooy wàllu ñaan boobu wàllu dem ñaani kayit dafa xaw a niroo ak lotori moo tax wàllu barxuut boobu dafa am pour chance maanaam nit ñi dañu bari mais léeg nga gis koo xamee ni day def lépp day am lépp waaye amul chance léeg nag nga gis koo xamee ni du def benn effort waaye yàlla def ko def def ko may chance moo tax doomu aadama ci chance la ñuy rawante léeg nit ki nit ki wërsugam day tëju kii nga seetal ki fekk wërsugam day tëju dafa tëju ku tëju fu mu munti dem du day gën a tëju rek waaw fu mu nit kale dem ba kale nag. <laughs> nañ ci yàlla musal. Hmm. tey euh, loolu aussi dañ ciy yëngu ndax dafa am lu ñuy tuddee eh, ñaan ak lu ñuy tuddee bayre ndax léeg nga gis nit ñi nekk ci bërëb. waaye diw gën a am gën a neex nit ñi loolu euh, léeg-léeg sénégalais yi dañuy wax sax nit ki dafa yëngal butéel bi waaye <laughs> yàlla yàlla baax na loolu daal incha allah dañ ciy ñaan dañ ciy ñaan yàlla te dañ ciy def euh, yëfu pël yëfu pël nag lañ ciy def defuñ ci binduñ ci defuñ ci waaye nag yëfi pël lañ ciy def waaw ci bayre day ànd ak kaaraange waaye nag li gën a bari ci bayre du am kaaraange. bay li ci gën a bari bayre xam nga bayre nit ki bu fekkee yaa ngi ci njub bu fekkee yaa ngi ci njub bay bayre du la wàññi dara waaw bayre dañuy naan lamiñ dalay jàpp cat jàppala déedéet bayre bay bayre nit ki bu ko amee am lamiñ sax dafa jig doomu aadama nit ñi dañu naan lamiñ moo leen jàpp waaye lamiñ dafa jig doomu aadama ndax nit ñi lamiñ du du topp koo xamee ni tekkiwul dara léegi nag loolu kon bayre boo ko amee baax mais am na bayre yoo xam ne ci jaaro lañ koy def bayra yooyu bayra yooyu ci jaaro ci jaaro waaw bayra yooyu nag day am muslaay ndax loolu la ñuy tuddee xaatimu suleymaan xaatimu suleymaan xam naa ñu bari xam nañ ko euh, loolu loolu depuis depuis jamono yeneen yi la ba tey nit ñi ñu ngi koy jaara boo xam ne day am pouvoir day amaale bayre day am euh, kii muslaay aussi pouvoir bayre muslaay loolu daal boobu daal laa xam ni boo amee bayram danga war a am muslaay waaye yeneen bayre bayre sungu fii moom euh, amul amul dara loo xam ni boo ko defee gis naa ne da nga war a def mus muslaay waaye muslaay nag dafa baax ci doomu aadama ndax nit ki booy tëdd danga war a muslaay booy génn sa kër da nga war a muslaay booy tukki da nga war a muslaay muslaay nag du du du takk téere yu bëri wala kii déedéet muslaay moom boo xëyee rek ne awus billahi min shaytan rajim loolu rek muslaay la waaw muslaay moom daf muslaay moom dafa bari ndax doomu aadama moom seetaan rek moo koy lor waaw loolu aussi daf ci am solo surtout ngay tëdd di booy tëdd dem jàpp ba pare soog a tëdd loolu dafa am solo. te ñu ñëw ci nit ki nga xamante ni dañ koo njabar ba xam kooku nga xam nga nit ki d'abord balaa ñuy wax ci nit ku njabar nit ki siñ yi ngay xamee ni nit ki da koy am nga xam ne kii day mu xam ni moom ci boppam dañ ko njabar. siñ siñ am na siñ yoo xam ne nit ki bu ko gisee rek. dafa war a xam ni man dañ ma jabar ndax ndax léeg nga gis koo xamee ni guddi gi yëpp day feebar bëccëg bu jotee rek mu xëy dem bo dem ci dem yoonam wala nga gis ko gis koo xamee ni bu demee ci bu bu jugee pour jël defi liggéeyam rek mu am tolof tolof wala nga gis koo xamee ni mu am benn taab ndaw boo xamee ni moom du du wér rek wala nga gis koo xamee ni yaram bi day am métit métit buy tox mu mel ni yax yi te boo demee fenn du hôpital duñ ko gis ak yu kenn xamul loo loolu nag bu nit ki bu ñëwee ci da koy seetal bu dee loxo moo ci nekk nga fexe ba dindi loxo bi xam nga nag léeg-léeg nit dina dem fekk tooñul kenn kenn tooñu ko waaye mu dëgg fu liggéey am waaw loo xam ni nit ñaar ñu bari woon daanu sa kaw la boo waaw waaw léeg-léeg xam nga liggéey léeg-léeg dina jëm ci diw waaye mu moye mu moye parce que léeg-léeg ñuy liggéey corte comme ñun ñi ko ñun sëriñ ñi ko xam xam nañ ne léeg-léeg nit ki comme comme ñuy liggéey nit benn nit benn directeur directeur bi euh, xëyul tey nga def corte bi tey rañ ko senni ki nekk ci place bi lay dal. kooku taxul woon liy jóg. ndax korte korte dafa amul tur korte bu ñu koy sànni dañuy xam place sànni ko amul tur korte amul ku lay naan korte am na tur mais euh, <laughs> Afrique la yàlla nañu yàlla suturaal daal loolu yàlla nañu mm-hmm. ko soxna waaw xam nga yaay wax mbir mu am solo. ndax dafa bari ñoo xamante ni tey buñ demee ba d'accord rek am lu ci am am lu ci kii léeg li ci gën a bari jigéen ñi ñi ci gën a bari dañu am faru rab te faru def naqari expliqué ndax nit ki du ko nekkul looy gis maanaam takk ndeer la kii la euh, yé for rab yëg-yëg la mooy nit ki saa yu demee mun ngeen nekk nekkin bu neex waaye saa yoo tuddee takk rek day am gàllankoor wala mu moom ci boppam mu mu mu bëgg nga ko xaar xaar xaar te xamuñu ba kañ. léegi nag ci lool noonu bu defee loolu noonu góor gi mun na dem dindi far rab bi fekk xale bu jigéen bi yëgul waaye it am na leneen. loo xam ni pël da ko doon def ci jamono yu yàgg pour boole ñaar ñaar nit ma jox la ki exemple pël ñi dañ doon def sax xar bu juree doom doom ji dee dañuy fexe ba mu miin beneen miin beneen xar di fa nampee léeg dañ doon def léeg dañ doon def béy yaayam dee fekk xar moo fi jur ñu fexe béy boobu di nàmp ci xar mi am na sax nag boo xamee ni si béy la walla ci xar léegi nag loolu dafa am zaaru noob yu ñuy def du dafa am zaaru noob yoo xam ne ay jat la noob noob noob diggante waaw loolu la ñu mooy pël yi nga dégg ñu naan pël da doon jat ñu naan euh, sarali muhammad wala ali muhammad pere mbeñaan pecciti mbeñaan ak seen kii yooyu ñu jat jat jat ba la ñuy boole aussi euh, ci ci ñaar ñoo xamee ni ñaar ñoo xamee ni dañ buggante te mënuñ euh, tase ak aussi li ci gën a bëri wala njaboot gu tas loolu maam yi liñ doon def ba xar yooyu miinante loolu la ñuy def ba njaboot tas léeg-léeg surtout nag sama euh, ma maa ngi ci am sax alhamdulilah ñu nekk ci extérieur bi nga xam ni nga xam ni seen doom yi dañ loon texoon nga xam ne nit ki day am doom doom bi dem ba màgg gis euh, dund bi foofu wala nga amoon sa jabar mu dem ba ci kanam mu demal bugg demal boppam nit ki bugg nga fayul ko ci nu bon déedéet danga koy orienté ba boole leen ba boole waat leen fekk defoo ci kenn lu bon waaw loo loo loolu daal ndax àddina lépp dafa baax ndax yàlla saa def ñu digal lu baax wa quulu linnaasi husnan wax leen ci nit ñi lu lu yiw da ciy déggee ne aussi jëf leen ci nit ñi lu yiw moo tax nit léeg-léeg suñ mbokk ñu nekk ci extérieur bi léeg seen njaboot dañ leen di të. waaw yàlla def yàlla def nag ñu buñ ñëwee ci yow nga defal leen li ñu doon defal xar yooyu wala li ñu doon defal euh, nag yo nag boobu ba mu miin xar bi wala xar bi ba mu miin nag yi loolu ngay def jat yooyu ngay def euh, ba ñoom it ñu ñëwaat taxaat miinantewaat àndaat. waaw ñu ngi ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla xam nga am naa yaakaar lool xam nga nit koo xamee ni laxuwoo ñu ngi lay gis fu ne chaque jour loolu li ngay jëf moom euh, nit ñi nit ñi ñoo xam nañ ko kon kon kon sant yàlla rek ndax bu yàggul sax laa fa jógee bu yàggul nii laa jóge Paris ah loolu yëpp sant yàlla la point yooyu bu ci nekk rek ku ci nekk boo dégloo rek yaakaar naa dina la amal njariñ surtout nag bu fekkee point fii fi jot a développé noonu am na yoo xamante ne ni dal na la jëlal numéro boobu noonu di daw ci suuf écran bi nga jokkoo ak moom Thierno Oumar Sow la mi fii ci Parcelles Assainies unité 18 ci kàttan yàlla bu ngeen jokkoo sa aajo ñu dafa faju sëñ bi ñu ñëw ci côté sunguf da ci ciy yëngatu bu baax waaw xam nga ku ni pël moom wax sunguf daa jàng nañ bind yi jàng nañ lépp waaye yàlla dafa def euh, ñu fekkoon sunguf xam sunguf yaroo ci sunguf nag bi ñu xamul sunguf lu muy jariñ sax dañu doon wax eh diw demal xasal ma nangam nga indil ma nga xas dem indi nga gis mag ñi weer boobu xamagoo la sax lan lay jariñ léegi nag boo demee ba commencé mag di mi comme niñ doon jàngee fuuta di ñibbisi léegi ngay nga ciy xamaale dara nga ba ba ba ba nag mag nga xam ni pare nga jàng bee ñoom it ñu dugal la ci bi euh, léegi nag ci loolu noonu sunguf boo gisee te ñu bëri naan sunguf laal naa sunguf be wala def naa lii def naa lii yëpp gisuma dara parce que sunguf bu ne dafa am noo koy jëlee sunguf nit nit du xëy xëy rek dem ne damay jël sunguf déedéet sunguf dafa am jour yu ñu koy jële mun naa la jox exemple comme alxames alxames ak altine mm-hmm. man mi ci sama bopp sax sunguf buñ dindiwul alxames du ma ko laal wax ma la wax la nag di ko jox nit te sunguf dafa am noo koy jëlee dafa am ay régal du du te dafa am garab yoo xamee ni aussi dafa am garab yu am dëkk am yu amul dëkk bu nit loo boo koy boo koy dindi am na nooy def am na sax ma wax la ci lu ci gën a doy waar am na garab yoo xam ne sax boo koy jëlee da ngay arrière boo ñëwee ba jege da ngay arrière arrière ba agsi ci garab bi soog a soog a wëlbati am na ci garab yoo xam ni boo koy jëli boo boo boo fa jógee doo geestu xam nga loo loo moo tax yi fi sunguf dafa dafa dafa doy waar te moo tax léeg-léeg nga gis nit ñu ni mu ni jox nañ ma sunguf def nañ ma nii wala jox ñu ñu jox nit tonu sunguf du am njariñ nga am tuuti sunguf nga dégg nit ki naan ah daaw man de sunguf bi ma laaloon daaw moom dafa parce que tuuti boobu lañ defoon lañ jaarale woon yoon moo taxoon mais lu bëri la lee ki ko dindi xamul sunguf wala niñ koy jaaralee xam nga sunguf bi ci gën a bi ci gën a neex ci sunguf bu dee wala ubbeeku wala bayre am na garab xaw ma nuñ koy tuddee ci olof waaye def am garab yoo xam ne ci kaw garab lay sax taw naa ki pattuki lañ koy wax ci taw naa lañ koy wax ci ci ci ci pulaar day am taw naa day am taw naa ki garab bu la gën a neex boobu boobu sax yow yow mii journaliste bi mun nga dem jëli ko. di di di ko bàcc. loolu gar waaye nag ak ni koy jëlee. dañu ñëw ci koy wax néew kàttan. sëñ bi bari na trop est ah, waaw euh, sant yàlla bu baax xam nga mën naa mën naa. day nduru leneen waaye yàlla dafa def ñu invité woon ma ci beneen chaîne loolu kes laa waxtaanoon mooy euh, chaîne bu bu Haalpulaar yi foofu leeraloon naa fa euh, lu bëri te wane woon naa fa traitement yi ndax kooku def ma demandé woon ma indi traitement yi woon nit ñi waaye yàlla def bi ma ko bi ma bi ma ko jëf ñi ma jëflante woon ñu bëri tey est-ce que takkuñ sax ñeenteel <laughs> waaw loolu loolu nekkul lu ñuy jar bu dee nit ki liggéey bokku ci bu dee liggéeyu nit ki ci wàllu ngóoro damay jekki saaye ba bu may waaji kii ak moom rek yëf fii kii euh, nga dégg ñu koy wax yu ci bëri loolu nag boo gëstoo ba xam ne loolu du ci dara du du yooyu yëpp bu dee yooyu yëpp nga dindi ko bu dee du yooyu yëpp traitement bi rek laa lay jox amul amul goos amul droite dama lay jox traitement bi rek nga nga dem ma dem Euh, bu ma juumul woon saa indil la traitement bi. Eh, loolu ah. waaw yàlla dafa def. Euh, eh, mais xam nga nit ki bu la bu la waxee traitement bi ay bouteille la. ay yi gin nga ci néew boo jëlee troit bouteilles yi mu naaral assuré ñetti ñetti at. xaw ma ginnaaw ñetti at mais ñetti at moom dootoo ko jàmbat waaw da da da ngay noo ko bëggee ah, te nag te loolu am na am na am na beneen boo xamee nit ñi duñ ko faral di tudd mooy ni ni muy dalee góor noonu lay dalee jigéen oh, waaw xam nga nu muy dalee jigéen mooy jigéen bi léeg-léeg day day day nekk jigéen boo xamee ne du sentir góor du maanaam nit ki yéeg na wàcce na dem na waaye moom du du du ci du ci sentir mooy mooy li tax ñuy wax sëy xam nga sëy léegi de dafa def dañuy bizarre ndax lu ci bari ñaar ñoo xam ne dañ doon bëggante bi biñ ñëwee ba gisante ba dëkk benn kër ku ne bu jisee kenn gi day mel ni xolam lay gis loolu loo loolu léeg mu nekk rab waaye léeg mu nekk liggéey waaw ndax dangay ngay bëgg may bëgg nga ma yóbbu li nga bëgg. waaw léeg nag mu nekk euh, aussi. léeg mu nekk ñoo koo xamante ne aussi euh, liggéey benn nit ki mun nañ ko liggéey kenn ki fekk sax concerné wu la yow waaye ki liggéey kooku moo lay gis xolam bi mel ni lu lu lu la bëggul. fekk bu génnee bu génnee léegi dem bitik xelam bi yëpp ci yow lay nekk. waaw lé loolu nag léeg day dal jigéen day dal góor. waaw wàllu lu ñuy naan ngóoro waaye loolu lay dalee jigéen aussi jigéen moom bu koy dal léeg-léeg buy seeg seek jëkkëram du ko sentir buy buy du sentir ci moom dara daal wàllu wallu wàllu lal. mais muy jigéen bi moom muy jigéen bi muy góor bi ku ci ñëw ñu ñu jàppalante ak moom te ñun moom jàppalante la ñuy def. incha mhm. unité 18 dégg ngeen li ñu fi jot a waxtaanee numéro yaa doon suuf di daw ci en bas écran bi képp koo xamante ne daal li ñu fi jot a waxtaanee yëpp dal na la wala mu dal sa mbokk du ma la tettal fenn dawal gaaw Parcelles Assainies unité 18 ci ci Thierno Oumar Sow ci kàttanu yàlla boo demee yàlla dina faj say aajo sëñ bi ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak waa réew waaw. Euh, ñu ngi lay jërëjëf ñu ngi lay jaajëf ci ci ci yombalal gi nga yombal te ñëw ñëw seet si ñu ndax euh, loolu it wóolu nit ki la euh, di ñaanal waa sunu gaal yëpp ginnaaw bi ma ñaanalee Sénégal ak bitti réew di ñaanal ñi jiite réew mi yàlla may leen jàmm ndax ñooñ bu ñu amee jàmm rek ñu am jàmm euh, ginnaaw loolu duma wax ci émission ba jeexal te tudduma tey ziar ziar euh, famille Omarien bi nga xam ni ci ci ñoom laa jànge ndax ci ku jàngee Fuuta ku jàngee Fuuta moom ci ñoom nga jàngee. léegi ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ziar di ñaan yàlla yàlla nangu ñaan yi fay def yëpp te it euh, bu ñu fi jógee léegi dañuy àgg foofu ci hadara bi euh, incha allahu rabbi. ñu ngi ziar ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp aussi.